di soppeeku sëñ Mbàkke moom maam soxna loo Jóob Taïf tey ànd ak sëñ Muntaxaa ci liggéeyal sëriñ Tuubaa saa a nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool tey roy Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ci dëgg tey yéen ñëpp jàmm te di ko ñaanal mbindeef yëpp di ko ñaanal jullit yi waaye di ci jiital sunu kilifay diine yi yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diine ji ne ci bopp ba waaye di ci jiital ki nga xam ne nag moom mooy sunu lépp te mooy sëñ Touba muy sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla mooy ko fan gudd wu ànd ak wér yaram defal ko mboolem njabootu sëñ Touba gi defal ko it jullit yépp li sëñ Mountakha yéene ci ñun ci jàmm bëgg ko ci ñun dina ko yéene dina ko ñaanal dina ko digal yàlla na ci dajeeg ndimbalal yàlla ba yàlla defal ko ni nga xam ni la ko bëggee ndax. sàmm moo ko fi baax sàmm nu it moo tax waxtu jot muy def la muy def lépp ci digle lu baax ak di tere ab safaan tey jéggale te loole ca la maamam ji nekkoon muy nangu dogalub yàlla mësta tooñ yàlla te lu yàlla tere musi su ko caa seen waaye li ko waroon ci diggam ak doomu aadama yi sëñ Muntaxa wootu na ko ci muy nee na mosuma cee tooñ benn mbindeef sëñ Muntaxa mësta tooñ kenn te Serigne Touba na ku ma tooñ ma jéggal la te sëñ Mountakha Mbacké nag moom loolu yaakaar naa moom lam ci am kenn amu ko topp kenn ak tooñ te waaye wax rek mu jéggal la ko ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala ngir jëmmi yonente bi ak jëmmi seexul xadim mi nga xam ne ab jéggalaakoon la waaye mu dolli ci ne sëñ lu ma amit bokk koog mbindeef yi du ma tooñ kenn ku la te lu ma am bokk ko ñun kon yaakaar naa ñett jikko yooyu moom ñëpp xam nañ ne sëñ Mountakha moom kenn xanaa warta sikki sàkk ne léegi deful loolu sëñ Tuubaa waxoon li muy def ci wàllu social di ko dimbalee di ko dimbali réew mi di ko dimbali mbindeef yi di ko dimbali taalibe yi di ko dimbali bokk yi loole day képp ku ajugul ci sëñ Tuubaa mënoo ko ku topp ajugul ci sëñ Tuubaa mënoo ko ndax sëñ Tuubaa mooy saa nafxin bi laa darar waaye sëñ Tuubaa it mooy borom simaamul wara asri ladallahi fii yadd yi kon sëñ Muntaxa ci wàllu social muy wàllu taxawun bu ci manee lii mu man rek li mbokk ci sëñ Tuubaa moo ko ko may ndax sëñ Tuubaa kat la yàlla faral sëñ Tuubaa la yàlla dimbali sëñ Tuubaa moo lëggeel yàlla lu ko kenn mësta lëggeel ba yàlla fay ko lu mësta fay kenn fay googee nag bis bu set dara génn ci ba addinay tukki lu kenn mësta gis loola nag mooy lii nga xam ne jàmm jim yéene nit ñi ak di bokk ak nit ñi lim am ak di leen dimbali mooy lii muy woote ci premier muharram te muharram premier muharram weeru muharram ci boppam dafa am solo taarixam dafa riche lool yàlla dogal nag loola buñ ci àggee nii ko kilifa yi wootee nga xam ne sëñ Tuubaa dafa waxoon na tax si mu yan xatimu xala sawi taxadumi gis nañ kilifa yu bari kenn ku ne def nga déclaration sëriñ ma Mor sëriñ ma Samba Mbacke mi nga xam ne mooy suñ bunt ci kër gi yal na fi yàgg te wér wutu fi magam ju ju baax ja ñu denc ci derul karim wax na mboolem ñaaju ci kër sëriñ ma sàmba ñu dem deru karim ca penc ma buñ demee dundal fa digali sëñ mun Muntaxa yooyu itam mooy xasida te xasida moom ku ko wax kër kër xasida mooy kër sëñ ma Samba Mbacke ndax sëñ ma Samba day doon rakk sëñ Tuubaa taxul rek mu am sañ-sañ di bindal sëñ Tuubaa xasida ndax sëñ Tuubaa ay mbiram joxewu ko ci judd joxewu ko ci ay cër yooyu day mbirum suñ borom moo xam ne si lay tax nit am ca sëñ bi moo la koy wax nga def ko sëñ bi nag moo war sëñ Masamba Mbàkke ba mu ñëw mu ne ko Masamba bis naka tey jii ma ñëwee njëreem kat suñ borom xamal na ma ne xasida yii nga xam ne moom lay bind lu ma ca bindati Masamba yow yaa koy maas loola kat suñ borom moom ma ko digal te man jëf digale suñ borom rek lay jëfandikoo kon loola leer nañ ñëpp ne yàllaa ko sant sëñ tubaa mu sant ko sëñ Masamba benn bis it sëñ Masamba sëñ tubaa woona ko ba ñëw mu ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko xaside yi day ñëw ñëw ci man wax ma ne ma dénk nu Masamba bàyyee ñu Masamba nañu Masamba di saytu man nag am na xasida yoo xam ne bind naa ko te suñ borom kat bu la joxee fukk boo des gor da nga ko war a delloo juróomi ndax am na ci kat yoo xam ne fii bu génnoon fii li jaamu jaam yi góorgóorlu ci jaamu yàlla ak su néew dootuñu ko def kon nag yow li war a génn xam nga ko liy xaar ëllëg xam nga ko li nga xam ne dañ koy denc ba jëmmi jamono xam nga ko dugal nga waxtaan ak ñoom boo demee lu ci mat a génn génnee ko bu ma ci tàggoote bu ma ci laaj dara loolu la ko wax. benn bis mu woo ko bu ñëw ne ko Masamba mu naa mu naa ko kat sunu borom xamal na ma ne xalima yi nga xam ne moom lay a xasida yi di ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis naka tey xalima gu ma bindati yaa koy sot loolu ba ko ko waxee sëñ Mor ab safaal ci ngiig la sëñ Touba sanc sant mu wutal ko xat sëñ ab sa dem santaane ko ci ñam ko sant mu ne leen na ngeen wut xat boo xam ne sii nag ku dul yàlla moomu ko te bu ngeen ko wutee wutee ba gis ko bala ngeen caa jublu ca liggéey ba na ngeen kenn ku nekk yor am njàpp ay mag yi mu dugg ci àll bi wutal ko xat boo xam ne si lañ ko lañ ca jóor ci ay wagoy saxaar lañ ko dugal ba nga xamee ne dugal nañ ko ca wago saxaar ga saxaar ga daat fay jóge jaar luga sëñ Mor soxna ma fa nekk dajeeg ña nga xamante ne si ñooy indi xat ba te yéeg ci saxaar ga mu jaar fa ànd mu ànd ak ñoom àndal ñu saytu lañ ca war a saytu saxaar ga ñëw tiwaawoon sëñ maru bëggee génn ak ñoom àndal ñu xool ko saytu ca lañ ca war a saytu mu jaar xombal kilifa googu sant Njaay ma juumul sëñ Moor Njaay la walla ku sant Njaay ci kilifa yi dama fàtte turwa moom it génn ak mbooloom saytu ca la muy saytu ba saxaar gi teer si njëriñ si Abdou Fall ànd ak mbooloom ak waa kër Cheikh Issa Dieng ñu ñëw wàccee xat ba sëñ Tuubaa wax sëñ Balla Fay la jëng ne ko xat bi wutal foo ko dugal mu dugal ko fa nga xam ne fa la sëñ bi soxla waaye lañ ca soxla nag ci yett xat ba ci ay xalibu moom sëñ Masamba la koy sëñ Tuubaa santoon mu yettal sëñ Tuubaa lu toll ci fukki junni xalima ak ñaar yoo xam ne si yettal na ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa tagg ci xasida yi diirab lu mu nekk ci njëriñ fukki junni xalima ak ñaar sëñ Masamba sat na ko foofu benn bis ku tedd ki woowaat ku mu ñëw ne ko ma ne ko Mbàkke mu ne ko xat bii nga xam ne yaa ma ci yettal xalime yi boo gisee may saytu xalima yii mboolum li ma ci tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sat ko bu ëllëgee daaj yi dana teew xat eh, xalime yi dana teew yàlla teew yonent bi teew man mi danaa teew yow mii Masamba da nga teew te bu boobaa xalima lu mu jooyoon ci tagg yonent bi daa ju nekk lu mu yabbi woon ci tagg yonent bi loola lépp danañ ko waxaat te bu boobaa de Masamba kat da nga am xéwal lii sëñ Masamba am na ko ci xasida yi daana ko wutal ay kuréel ci àll bi di wër lu mu am ci mbooloo mu mën a jàng alxuraan neex baat mu dajale leen indi leen sëñ Tuba ku mel ne Ibra Buuba Faal ak ñu baree baree bari sëñ Masamba leen indi ci kuréel yi ñuy jàng te ñëpp gis nañu wàcc waaye bañ wàcc kon nag lu mel noonu bu ko sëñ Masamba amee ci xasida ba kuñ ko wax ñu dégg ñu xel di dem ci sëñ Masamba ba daaju ba kër sëñ Masamba lu mel ne jës boog mawaaye boog midaad yi ñëpp dégg ko ci moom kon bu xalifab sëñ Masamba wootee ci ndigalal sëñ Muntaxa ci Daaru Karim nañ maase sant yàlla te dem ko ña fa nekk te mën a dem nañ dem ña mënta demit nanu toog fañ toog te dundal ko ndax dundal am njëriñ te tax sëñ Muntaxa def ko moom bu jàllee ñëpp danañ ci teg bët incha allah jàngoro ji ñii tiit nag jërul tiit nii ko sëñ Muntaxa di peege rek noonu lañ koy peege ànd ceeg waa àddina ba pare nag bàyyeeg yàlla mi ko teg ndax mbir kat bu la gaaree te xam ne yàlla doo nga koy tege musula ca loola du la ca musul daw loola du la taxaraw da ngay dem ca morom boo demee nga ñaan ko mu may la te borom kat li mu digle mooy jaamu yàlla jaamu yàlla fu ñu koy defee ci jumaa yeeg jàkka yi jàkka yi mooy solution ci yëpp jàngoro jumaa yi mooy solution ci bépp jàngoro nañ tijji jàkka yi tijji jumaa yi fu julit mën a nekk ta xam ne kat ab malade warut a daw hôpital ndax wopp wopp bañ wop dal la wala wopp dal la ba pare ngay daw hôpital kat loolu yaakaar naa ne ak ndox dong la te yaakaar naa ne bu nattu ñëwee ci àddina jege yàlla yi gën mooy moo gën mooy ndigal li te mooy li nga xam ne moo la ci waaye nag daw yàlla moom yaakaar naa ne koy def la ngay daw la ngay ragal dana la gën a mën topp sëñ Tuubaa wax na ko ci Masaalikul Jinaan ab xaj sax bu dawee ne la ërtal bul bare xaj ba ndax bëgg mucc ci xaj ba demal ci borom xaj ba wax ko mu yob xajam wala mu jàpp xajam jàngoro ji kenn mënu koo daw yàlla rek ko mën a tege te moo koy tegee nan jege yàlla ci jaamu yàlla nañ jege yàlla ci ñan yàlla nañ jege yàlla ci jéggalu yàlla nañ jege yàlla ci sàkk sarax looloo ci mën a musal jaam yi sëñ Muntaxa mës ta tegg tànkam ci loolu li ko àddina laaj mi ngi ko koy jox li ko àllaaxira laaj mi ngi koy def te jaam yépp la ko bokkal kon nag ñëpp la ëmbatu ëmbalu yu nit nag bu la ëmbalee yu a ah, war ngaa gore gore ba lam la digal nga def ko te bañ faa dem di fa yóbbu ay ay caaxaan wala mbooloo mu di la fa yóbbu kenn ku nekk na nga fexe xasida ga nga peeg nga dem jàng ko fa te sellal ko te ku fay demet bu fa yóbbaale ay ay ay bori julli na ngay julli ca waxtu wa te boo fa demet bu la fa waxtu julli jotee na nga julli ànd ma lii daal mooy li nga xam ne man tey mooy soññee bi nga xam ne maa koy soññi bépp